mangoog ñu fas yéene ko door rek géew politique gu jax lool Walf Quotidien fa la taxaw di ñu dégtal ay caravane yoo xamante ne ku jeeg politique bi ñu ngi koy amal ngir tàmbalee daggaan baatu kan wi waaye nag nguur gi def leen ca xañ jàmm say su ne muy jor leen ay gaz lacrymogène yéen cabinet doxalin la goo xamante ne mun naa yee fitna ci réew mi te mu ne de ci jamono ji njiitu réew Macky Sall ma ngay woote jàmm yéen cabinet kenn mun tànnaat njiitu réew Macky Sall yenn saay mu sedd guy yenn saay mu tàng jépp yéen cabinet Walf Quotidien moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen kaay geneen le mandat ne ci jamono joo xamante ne teg nañu loxo ngañ dem ba Touré loole nag doon lu metti lool njabooto ñi yëngu ci wàllub yoon ba tax na tax nañu taxaw nañu tembe ngir jàppal tànk maître Ngagne Demba Touré yéen kaay bi moo ñu ko yëggee yor-yor bi xëy ñu xibaar ne ndaw patriote yi ñoom kenn demul ñu des taxaw nañu tembe ngir mun a maanaam taxawu ak ñag kii di Ngagne Demba Touré mi gàddaayoon réew mu Sénégal dellu soit ñu teg ko loxo ci saa si yéen ci ci àtte ko lañ jëm buñ ci jogul taxaw yéen kaa bi di yor-yor bi di ñu dégtal Cheikh Omar Diagne ma ne woon kaso yekk na lu mel ne xeme nguurug Macky Sall jàpp ne nguur gi fi ne jaay dooleeg euh, nasaxal li nga xamante mooy àq ak yelleefu doomi aadama ci la ne nguur gi ni mel euh, tëj ñaa ñu bëri ci kaso yi ci anam yu déppoo ak yoon ba tax na Cheikh Omar Diagne anam yañ ko tëjee logo lañ ko tege loxo tëj ko ci kaso bi dina ko kalaame fu mbaxana done ben dina jébaane nguurug Macky Sall ca CEDEAO ak feneen ak feneen yéen kaa bi saa waxtaanee leneen faatub ndem si yàlla Alpha Yoro Tunkara étudiant la gu newoon ca UGB yéen cabinet ci jamono jamu faato métti woon na lool ndem si yàlla Prospère Clédor Senghor toll woon ci ñaar fukk ak ñaar ne woon étudiant ca université yéen cabinet anam yu méttee métti la faato bokk na ci jot na métti li xew ci réew mi ne li des mooy faatu sax moo gën a noppale ne seetaan li xew ci nguurug Macky Sall ak li askan wi di daje yéen cabinet di Le Soleil dina janook askan wi leeral moom jiitu réew mi Macky Sall ci janoom ak taskatu xibaar yi ngoonu tey jii bu 19h jotee lay doon yéen kabi di Le Soleil dina ca bokk yéen kabi di Le Quotidien ne organisation taxawal élection présidentielle njiitu réew Macky Sall mu ngi ci lëndam ci jamono ji kenn mën a gu ci gindeeku njiitu réew mi Macky Sall xam le ne daañu amal waxtaanee ban waxtu la ñu amal élection présidentielle waaye lépp nag dialogue ak concertation goo xamante ne ñëpp ciy bokk moo cay jiitu laata euh, ñuy fësal date ba yéen caabi di réew mi quotidien des ak ñu nag njiitu réew Macky Sall mu ngi ci euh, guddi gu bër setagul yéen caabi ne datub élection bi kenn mënagu koo xam faw ñu soobu ci waxtaan ba noppi euh, ñu ngi koy xaar ngoonuk tey ji mu war fas yéene janook taskatu xibaar yi 24 heures jàngate élection présidentielle yi war nañu xoolaat suñu suñu démocratie ak suñu doxalin mel na ni njiitu réew Macky Sall dafa bëgg a ngoy ci réew mi yéen kabi di l'évidence ne njiitu réew mi daanaka wéet na ci xeexam moom kot moo jàkkaarloog askan wi ci ngoonu tey ji ñu ngi koy xaar ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi xëy na dina addu ci crise politique yi fi am addu yi tamit ci libération détenu yi addu ci leneen ak leneen l'évidence moo ñu ko yëggee ci jamono joo xamante ne APR daanaka euh, kaddu ga benn ci kuréel ga boot jigéenu APR l'info moo ñu ko yëggee am ñu ànd ak Ndeye Sali Diop Dieng am ñu ci àndut ak moom euh, Abdoulaye Diouf ak ñamu àndal jot nañoo ñaawlu doxalinam ba tax na Euh, groupe whatsapp ga leen tënkoon tas na tasar mu ngi ci yéen a bi di l'info yéen a bi di las di ñu dégtal Amadou Ba di candidat bu benno euh, ci jamono ji taxaw na tembe ngir itamit euh, jegewaat askan wi waajal élection présidentielle yu 2024 gi ñu ne moom la ñuy lam-lame ndax kañ lay kañ lañ koy amal yéen a bi di Walfadjri quotidien li am ba des mooy ëllëgu Aliou Cissé ci boppu équipe nationale léegi doon na bu tàng jër ci loxoy fédération sénégalaise bu football Euh, ndax dañ ko euh, jële ci bopp équipe bi dañuy tekki ndombol tàngam waaye da wala boog moom mooy jékki-jékki ci coobareem euh, ba équipe nationale Walf Quotidien ak li ci munta am mbir yi du yomb ci ëllëgu Aliou Cissé ci bopp équipe nationale.